important en Europe toutes nos émissions c'est important comme ni ma leen koy waxee saa su nekk programme yi am solo yi ñuy indi fii biir euh, l'évidence TV dee leen abonné boo leen ci bëggee jot dañuy jàll rapidement si sunu deuxième et dernière partie émission ndax dañ ciy ànd ak sunu invité muy sunu chronique du jour euh, cher tey on va parler euh, ci dépôt de la motion de censure on voit que Benno met sa menace à exécution cher <laughs> Benno met sa menace à exécution en fait guerre bi rek moo des waa benn moo leen dese. <laughs> c'est c'est une teg jeexal. su fekkoon match de football la ma ne ils sont en finale. Mhm. football seen finale. léegi nag finale moom on peut s'attendre à tout. tu ah. peux match tu peux match par prolongation. Ah. mën na dem sax tiro bi. donc lu ne mën na si. mais match nul Cheikh mënul am. match nul non non il y aura pas soit tu soit tu perds ça passe ou ça casse ça passe ou ça bi foog mu am vainqueur foog mu am perdant léegi nag qui sera vainqueur entre Benno ak entre la coalition Diomaye Président parce que ñaar moo fi am soit l'assemblée va tomber en premier ou bien le gouvernement va tomber en premier qui de l'assemblée ou le gouvernement va tomber en premier c'est la grande question parce que gis nañu Abdou Mbow le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar mu parce que c'est la constitution qui droit moo ko mmh. permettre constitution moo ko permettre si vous article 86 article 86 mmh. même le intérieur de l'Assemblée nationale article 99 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale daf lay wax ne l'Assemblée peut provoquer la démission du gouvernement mmh. par le vote d'une de censure la signature d'une dizaine de membres il suffit juste la signature d'une dizaine de de députés pour ñu mu saisir li nga xam ne ñoom ñooy tuddee la conférence des mhm. présidents mhm. c'est la conférence des présidents qui doit se réunir ñoom ñu réunir mhm. ñoom ñuy wax ban date la ñuy xool pour li nga xam ne moom la doxal pour waxtaanee li tuddee moom waaw parce que avant ñuy dem plénière il faudra aller en commission buñ demee réunion des commissions xool ndax dañuy valider projet bi wala duñ ko valider buñ ko rejeté même buñ ko rejeté sax day jàll plénière parce que moo def nag en fait euh, bu dee politique la wax rek warul bett kenn bu ma nee warul bett kenn mooy c'est une réponse politique par rapport à un acte politique parce ils peuvent toujours pas li nga xam ne daf leen a métti mooy le fait que le premier ministre Ousmane Sonko. Mhm. nanguwul présenter wu devant l' assemblée nationale. pour faire sa déclaration de politique générale ñoom daf leen a métti ba léegi. léegi nag il fallait ñoom ñu def benn riposte parce que njëkkoon na fi jóg motion de censure c' pas une première fois ñu ñu njëkk ko fi wax boo xoolee gouvernement bi ñu ko installé. à peu près deux mois rek la le ministre des porte mhm. mhm. bu fekkee ñoom Abdou Mbow la ñu ñu gis polémique bi une semaine deux semaines après ñu rentré ko dans les tiroirs ñu ne le règlement intérieur de l'Assemblée n'est pas n'est pas conforme dafa am manquement mhm. il faut ñu defaraat ko les députés ñu coow ci wax ci wax ci bañ defaraat le règlement intérieur de l'Assemblée ñoom ñu doon xaar le PM ñëw présenté mhm. jusqu'à présent ils n'ont pas vu le premier ministre Ousmane Sonko mhm. léegi nag ak ce qui s'est passé récemment le euh, le président Bassirou Diomaye Faye avait saisi le président de mm. l'Assemblée pour la suppression de ces deux institutions dites budgétivores mm. léegi nag ñoom ñu rejeté loi boobu yemuñu ci beneen acte bi ñu mettre en place mooy dañuy déposer une motion de censure am nañ droit déposer motion de censure déposer nañ ko dans les 72 heures normalement la loi garantit hmm. leen bu ñu bu ñu waxtaanee ba juboo ñoom ñu dem séance plénière parce que il faudra ñu ouvrir beneen session extraordinaire assemblée actuellement moment bi ñuy wax ne ils sont en vacances hmm. amatul session ordinaire session extraordinaire rek moo am hmm. extraordinaire les députés ñoom ñoo ko mën a convoquer wala le président lui-même mu saisir le le le le nationale léegi nag il l'a fait le problème en benn acte rek la mën a jur mooy gis nga euh, il faut que benn ñoom déposer nañ seen de censure ils ont la majorité si c' pas une majorité absolue xam nañ ñoom ñoo am majorité et la preuve récemment passé daf ko wane. Mm-hmm. léegi ndax projet de loi bi day jàll wala du jàll attendons d'ici quelques dinañ dem plénière wala duñ dem plénière parce que on n'est pas encore là mais c' ce qu'on appelle la course aux montres parce que au delà de 12 le 13 le 13 septembre au delà de septembre. le 12 le la république mm-hmm. le 12.

son de censure boobu daañu ci informer le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye te itam am na ci benn tontu bu mu leen war a def mm-hmm. déjà bu ko neexee Euh, mu jël temps waxuñ ko ne fii lay yem fële lay yem. mais ñoom ñoom ils waaw mais mm-hmm. ak la présidence c'est deux yoo xam ne c'est mm-hmm. xam mm-hmm. a tous ses prérogatives mais assemblée tamit am na waaw mais nag euh, man li ma gëm daal mooy. ñoom ñooy jëkk daanu. match bi euh, premier mi lay yem. Abdou Mbow day guddal jël. match bi nga fi mu ñëw deuxième mi-temps premier mi-temps euh, waaw mais waaw mais yooyu après xam nga xam nga après lañ dugal léegi mi-temps bi waa benn ñoo gagné de waaw mais loolu beneen match la woon match bi mooy motion de censure bi beneen match la waaw kon dañoo nekk premier mi-temps mais moom gagné nañu 1 parce que ñoom def nañ li def waaye li ma gëm daal muy dëgg mooy Abdou <laughs> euh, jeu de politique ci la nekk mhm. euh, te itam comme li nga wax rek moo leen dese mhm. fi mu toll nii moom xam nañ ne jeexal nañu ci réew mi sénégalais yi itam pare nañ ci ñoom. Mhm. motion de censure boobu euh, même bu fekkoon ne réussir nañu lu ñu bëgg. Mhm. Euh, président Diomaye mhm. bu jotee bu recevoir kii bi lettre démission bi PM mhm. notification bi. Mhm. immédiatement mën naa nommé waat. waaye mën na ko reconduire. waaw léegi nag bu ko nommé waatee. Mhm. moom itam mu taxal gouvernement am. kooku ban la am ci bi. mais est-ce que yaakaaroon ne dina nekk benn éternel recommencement mu nekk benn retardement. non non non non du am benn retardement man li ma gis rek mooy ñoom. ba tey liñ naan euh, am na ñoo xam ne bu ñu doon daanu itam. war mbott. duñ nangoo daanu bu ñu doon daanu mbott bi gën a tuuti. ñu war ca fa la benn bokk yaakaar toll. mais bataille la bataille politique la. waa mais amatuñu ñoom amatuñu benn taxawaay ci politique ci réew mi déjà bu dee maturité amatuñu ko. su fekkee ne nit ñi di leen déglu nit ñi déggatuñu leen ndax 12 ans mënoo nekk ci réew mi yàq Sénégal tas ko ba li ñuy dund tey ñoom ñoo ñu ko yóbbee nekkoon assemblée national loi yu nekk proposé nañ ko fa ngir ñoom ñu tontu ca li leen arrangé rek foofu la ñuy focaliser wu. kon ñun li ñu gëm muy dëgg mooy Abdou lii du ci am ndam. Babacar te tout à l'heure nga ne Abdou Mbow ci jeu politique la nekk mais bu ñu delloo tuuti ci ginnaaw. Uh-huh. est-ce que jeu politique bi njëkkeewul ci le président Bassirou Diomaye. bi uh-huh. waxoon amuñu majorité euh, pour euh, mën a criminaliser euh, l'homosexuel. waaw à uh-huh. ci manque de majorité boobu. ci la proposer loi boo xam ne xamul xam na ne amul majorité à l'Assemblée.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 la e, conseil le CSE conseil économique des voilà social et environnemental mmh. amuñu fi njariñ yéen waa Pastef en quelque sorte wala yéen waa coalition Diomaye président da ngeen di jàpp ne c'est des institutions budgétivores ba gëmloo ko Sénégalais yu baree baree bare mmh. ba ñoom tamit ñu si bari psychologiquement loolu lañ def seen bopp mmh. bërki dem gis nañ koo xam ne dafa bokk seen gouvernement muy Moussa Balla Fofana ministre des collectivités territoriales lu mu wax ah,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 li may problème leen ko supprimer te mu ëpp xaalis budget bi ñu ko eh, xam nga ah, bokkoon na ci promesse ah, corporale yi lan moo tax monsieur Mbow yaa ngi naan tout à l'heure yaa ngi mhm, ah. yi dafa dafa bëri voilà liñ fay dugal et tout mais pourquoi pas tamit wàññi yenn dépenses de l'état yi pour mu dem ci askan wi waa ñun gëm nañu ne euh, par rapport ak discours président Ousmane Sonko mhm. fan yi ci ginnaaw wax na ci lu mel noonu Euh, dem nañ ba nga xam ne nee na lépp loo xam ne ci wàllu. ah waaw ay machine à café ngay wax. non non dégg nga dégg Ousmane Sonko de. ay machine à café non du loolu rek fas na yéene wàññi lépp. de vie bi gars yi di dund. fas yéene wàññi ko ndax askan hmm. mi dafa metti hmm. waaw démb maa ngi seeti benn kilifa ci mi. mooy bi ñuy déggal hmm. boo ba biroom li nga xam ne ni ñoom waa benn bokk yaakaar doon dundee bi ñu yoree réew mi. wuute na lool ak.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 dañoo nekk ci ay réglages yoo xam ne. lan mooy justifier. Euh, euh, li kan def Ousmane. Euh, promulgué loi bi le 30 août. te publié wuñu ko ko waa xam nga réew mi dafa nekk ci circonstances yoo xam ni. ak coow yu fi jaar yëpp. peut-être loolu moo tax affaire bi am tardement waaye président yi ci boppam. Mm. fasul yéene doxee ni Macky Sall doon doxee. ci injustice non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

accompagné des programmes d'Evidence TV. Merci beaucoup.